waaw mu ne amin nag bu fekkee ilimaan day biral yow koy wax ndànk bu ne waral waalin nga ne amin ndànk loolu la imaam Maalik digle am na ñoo xam ne dañu ne jumaa ji di wax ci kaw nañu ne waral waalin ñu naan amin di wax ci kaw loola ci boppam imaam Maalik ko te ñun ci imaam Maalik lañu dox kon moom la xam ne amal ndaal imaam fàll as waare fas yalu ga yaquluha da koy wax dong bilaa icaar ci lu biral imaam moom bi bi yàlla bu ne wala daal di ne daan amin waaye su dee biral bu ne wala daal daan cell mbooloo ma ne ca gannaaw wax ne amin ndànk waxu de limaa li leen gënale tasbihu rukko yi sàbbaal yi wax ci rukko ya wadduha ak ñaan ga inda sujjóot fa sujjóot ga kullu man képp koo xam ne waxaa wattu na fiqaan fiq képp ku dégg fiq daal nee na subhaanallahi naasim ñu ngi wax subhaanallahi wa bihamdihi subhaana rabbiyal ahla yooyu ñuy wax yëpp ci bokk soo ko bàyyee sa julli bàyyi nga leneen li ci tege te ñu bari duñ ko xam muy tapp yi lu naa guddal sunu asufa suba ga xiraata ci njàng tëbin dana biir fadilatal di ngëneel wa suhru tisbaar yëkkoon day nekk doona xaw di ko yées jàng saar yu gudd gudd sóoru tafsil ba suuf la ko téere wax sóoru tafsil ba suuf woo ci man nga jàng saar yu gudd ci fajar tisbaar nga jàng saar yu yées ya nga jàngoon maanaam yu xaw a gudd lay doon waaye du àgg ci yeewoon fajar loolu bokk na ci ngëneel taqsiruha gàttalam nag fil xasri ci takkusaan sumal maxrib topp timis timis ak takkusaan saar yu gàtt nga ci war a jàng ina ansalnaahu li ilaafi qul huwa wal hasri inna ataynaakal yooyu war jàng ci timis ak takkusaan su ma taw sa topp diggu dóomu nag la dal xisaa ca gee eh, sëpp nañ ko bu dee gee moom day saar saar diggu dóomu ngay jàng saar yu diggu lu mel ne alam nasrah guddul gàttul wa tiini wala ñax nga jàng la yépp nga def ko kon bokk na ci ngëneelu julli wa kawnu sóoratal ula ak nekkuk saar njëkk wa adool di gën a gudd min saaniyati ñaareel ba sukkin mii neef na ko min al fadaili mu bokk ci ngëneel saaru njëkk bi moo gën a gën a gudd da nga jàng saaru gudd ci rakka bu njëkk bi mu gën a gudd da jàng ci rakkaab ñaareel ba saar wi jàng ci rakkaab bu gudd bu njëkk moo war a gën a gudd ba ngay jàng ci rakkaab ñaareel loolu bokk na ci euh, li soppi waxay atun maxlumatun waxay atun aw melo maxlumatun mu di buñ xam hindal rukkoohi fas rukkooha rukkoo ga maxal juloo si ànd ak jekki ga xaddaha limaale na ko ahlul furoox ñooñu bànqaas ya ñi am xam-xam dëgg-dëgg daal nee nañ melow boo xam ne mi ñu xam na xam ne boo rukkoo ñu xam ne kee day rukkoo boo sujjootee ñu xam ne kee day sujjoot melaw bi rafet lool bokk na ci ngëneel yi am na ñoo xam ne dañuy toog bu ñu taay ni sut sutur seen bopp bi gudd ñu bopp seen tànk bi teg fi loolu du melaw rafet kon melaw rafet daa bokk ci ngëneel yi fa fadalloo gënal nañu alxunóota xunóot wal israar ak yàlla bii ci moom xablan xifaadin njëkk ak sippiku li rukkoo hin jëm ci rukkoo fanta bi ci xunóot yi day bokk na ci ngëneel yi xunóot nag da ngay biral suba waaye da koy yàlla moom xunóot bala ngaa jàpp say wóom nga koy def bala ngaa bu saar bi jeexee nga ca nga koy teg yuqra def na jàng ko yi nag fii saaniyati sufi ci ñaareelu rakkaab suba faqat dong baxdal xidaay sóoratin gannaaw ba saaroo jeexee fasar na nga wattandiku xalaat njuumte ñaareelu rakkaab fajar ci lañ koy jàng xunóot su saaroo jeexee nga teg ko ci waaye nag wajawa sa daganal nag alxibru fóoraja alfaqiihu di dégg fiq ibnu habib moom daganal na wuqooha ak tabalam sax baada rukooin gannaaw rukoo yaa labib yow aji xellu ji da ngaa fàtte xunóot yow ba jàpp sa wóom bi nga jàppee sa wóom nga ne ah man ko war na maa xunóot te fàtt naa ko nee na da nga jàpp sa wóom fa lool sëggal rek jàng xunóot ak nga soog a sigi loolu ibnu abib nee na loolu dagan na su fekkee fàtte nga ko ba jàpp ci say wóom fàtt na ngaa rukoo nee na tëyal ci say wóom jàng xunóot ba mu jeex nga soog a sigi moo xam da nga jiite moo xam ne li jiite nee na daganal na ko moom mu ne wax dëgg li maa def na ay la ba tey adduha ñaan baax de tasahudin gannaaw taaya saanin ju ñaareel unil te yàlla na ama leef la rusdan ak jub ñaan gi ngay ñaan ci taaya ñaareel ji gën a gudd moo war a gën a gudd waaye fii mu ne boo taayee taaya ñaar ba noppi jàng fa maanaam taay ju gudd gudd dafa bari du neex a wax dagan na bokk na ci ngeen di waaye bu yëkkoon da nekk it li siyaadati duhaa dolli ñaan ga minal ula ci ëj njëkk ja at walu di gën a gudd yaa fatin yow ji xellu ja maanaam bu fekkee da ngaa taay taayu ji mën ngaa yem ci saalihina jajees na nga dolliwaat nag ñaan ko gën a gudd maanaam taay ji mujj ji moom mooy gën a gudd fii rek la safaanoog saar yi bu doon saar wee saaru njëkk bi moo war a gën a gudd saaru ñaareel ba gën a gàtt bu dee taay nag taay ju njëkk ji ngay njëkk taay ba amee ñaar rakka mooy gën a gàtt taay ju mujj gën a gudd wa faddaloo gënal nañ ba tey tayaamu na nday joorlu inda salaam fa sëlmal ga taxriiku yëngal sunu sababatan baaraamu sànnikaay tam mat mat na tamaam cig mat a nañu ba ne asalaamaaleykum nga wëlbati ko sori nday joor bu gën a boo jëmee ci ilmaan bu noppi loolu ngëneel la yëngal sa baaraamu sànnikaay booy taay am na ñoo xam ne bi ñu taay di sànnikaay bii da ko yëngal muy loxo loxi ndax loolu dañ ne da nga ciy tulloo ne di kat borde la muy dóor seytaane kon gëneel na bokk ci ngëneel nga yëngal sa baaraamu sànnikaay booy taaya ndax ab ci seytaane ñu naan ab bolde la te day day tax nga teewul li ngay def kon boobu bokk ci ngëneel yi baaraamu sànnikaay boobu nga yëngal ñu bari na bu ñu taaya dañuy téye seen loxo yëpp rek duñ def dara te ngëneel loolu booy perte ngëneel yu bari dalay si xañ yu bari ah yi ñu soppa ngi nii ana yi sib nag yii dañ ko sib mooy safaanu sopp luñ sopp boo ko defee dañ ci am yool ñu yokkal la ko soo ko bàyyee doo ci am lu luñ sib boo ko defee doo ci am yool mën nga ci am bàkkaar kon liñ sib dañ ko rootandi ko moo tax man nag wa karihu sib nañ waxoo fanaa taxaw sunu biri liñ ci tànk waaxidatin bu di benn waaye nag fii xayri tuuri fii ci lu dul yàggu jëf waaw benn tànk koolaa ko rek jëf ko te bañ yàgg bu yàggee sax julli gi yàqu moom waaye di koolaa di te tey ko su julli day yàqu naka noonu wa karihu sib nañ iqtiraanu naa lënkale sunu rëj lay ni ñaar tànk sa ñaar tànk nga jaxase ko ràbbale ko dañ koy bañ wal jëxla ak def fil famille sa gimiñ ke dirhamee ni lu mel ñaari dërëm aw dirhamin wala dërëm waxee ri ak lu moom wala iltifaat gestu waxa gasaa ni ki ni taqmi doy nin gëmmal bët fi salaati julli illaa li onsri ndaari dul ngànt nag misla riihin ndeke ngelaw aw xaraamin wala xaraam fa innahu naka loolee kat isin ci waxtu woowee yuraamu dem na sàkk ko minu ci moom sim nañ nga fab lu benn dërëm wala ñaari dërëm nga def ko sa gémmiñ wala tàngal nga sax ko di julli walla ngay geesu wala ngay gëmm sa bët ci julli di julli bee nga gëmm lu dul ngànt nag ngànt mooy lan ngelaw lu bari ñëw mën nga gëmm ba mu jàll nit ku jigéen romb la génn awraam nga gëmm ba mu jàll su boobaa loolu dañ ko sàkku sax waaye ni di gëmmu dara jotu ngay gëmmu loolu lañ sib ba tey wa kariho sim nañ xaw xalatan laa xawla wala xuwata wa basmalatan bismillahi rahmaani rahim fil fardi ci julli farata laa fi nafli waxuma julli naafila mislal xasbana kem mislal xasbala kem asbana allahu wa nihma asbillah min seytaan rajim yëpp dañ ko sib julli farata ansu doo laa hawla wala quwwata doone bismillahi rahmaani rahim doone ansu billahi min seytaan rajim bu dee julli naafila la si buñ ko moo tax fil farri ci fart laa la wax kat laa fi nafli waxuma la mu ne wa kullumaa lépp loo xam ne yi wasi su dana jax-jaxal a sax sa jëmm jë la daa salaati fa julleem nga fa saaka loolee day makruhun luñ sib la xat ba daal feeñ na képp wax na nga julli ne dend ak dara moo tax appareil yëpp dañ ko war a fay ndax bu ne sa poos mën ngaa xalaat ni kat bu sonee nga wala nga déggu fekk dañ woo nga daal di sa xel ne ci jaxa-jaxal na su julli wala nga déglu rajo wala nga seetaanu télé yii yëpp dañ ko sib moo tax mun la tibb nañ loole moo xam fii jën bi ci wet ci wetam la nekk aw sëri wala gannaawam aw fi imaam wala ci kanam aw jën bi wala ci wàllam kama nasa naka mu yaxale bi ci moom al imaam ja fu mu la mën di féete rek di sib nañ loola waa këri xoo sib nañ yi ba tey al fikra xalaat la da salaat yi fa si julli ga fii kulli am ji mépp mbir dun yow yi yéen mu di ko ci àddina aatin lu di aji dikk maanaam di xalaat dara loo xam ne mbirum àddina di julli dañ ko bañ lool moo tax bala ngaa julli da nga def lépp da koy def boo julli ceeb soom xel nga def ko ci sunu borom te bañ a xalaat dara ci mbirum àddina am na dañ ko sib waaw ak fa kullumaa lépp loo xam ne rek yusxilu dafay soxlaal xanil xusuuxi wala si ragal yàlla lépp loo xam ne daal boo ko defee dana taxa ba sa na nga war na ragal yàlla doo ko ragal yàlla rek ci julli loolu sim nañ ko moo tax man fukkulumaa lépp loo xam ne yusxilu daf lay soxlaal xanil xusuuxi wala si ragal yàlla la daa salaati ko sëg julli it tanib na nga ko teet yaara julli yow waaji kon loolee na nga ko wattandiku kat ndax julli booy julli waroo yor leen loo xam ne day tax sab xol di ko soxlaal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 حي على الفلاح rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baax na jërë ngeen jëf kon waxtu geewe daa jot noo ngi julli ji gee fii ci xatar baax na jërëjëf moo tax ñoo julli gee